wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñaan ngërmande yàlla yàlla wàcce ko ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu ne mu ngi ñaan yàlla itam yàlla wàcce yërmandeem ak njëggalam ci képp koo xam ne topp nga Mawlana Cheikh Ibrahim. ci képp koo xam ne topp nga Mawlana Cheikh Ibrahim. ndax moom loolu moo ko fi indi. mooy ndax loolu moom loolu rek moo ko fi indi. sauvé jaamu yàlla yi rek moo fi indi Baay Ñas. sauvé jaamu yàlla yi rek yàlla na ko nit ñi xam. yàlla na ko nit ñi xam amin ndax buñ ko xamee rek dinañ jëriñu. di sant yàlla itam. mu ne mu ngi sant yàlla itam. bi nga xamee ne bàyyi xem na gilit goo xam ne ñun ñoo tax mu xem gilit gilit gilit goo xam ne ñun ñoo tax mu xamboon ko goo xam ne ñun ñoo tax mu xamboon ko te kooku mooy Cheikh Alassane te kooku mooy Cheikh Alassane Deme mun na wax ne leer ak cerno mu ne mun na wax ne leer ak cerno bu fekkutoon bu fekkutoon ñun duñ jot ci baay ñun duñ jot ci bàyyi kon jërëjëf Cheikh Alassane Deme kon jërëjëf Cheikh Alassane Deme moom mi ñu dimbalee moom mi dimbalee ba xemmee ñu ci taalib Cheikh Ibrahim ba xemmee ñu ci taalibe Cheikh Ibrahim taalal ñu bañ mën a taale. loolu dañ koy sant yàlla. loolu ñu ngi koy sant yàlla. ndax kenn ku nekk. ndax kenn ku nekk. ci sa buntu ci sa kilifa yàlla day wax ne su ma lay o ci sa buntu kilifa laa lay yo yow ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim. mu ne loolu wax jooju. suñu amutoon imaam mooy cerno. suñu amutoon imaam mooy cerno. kon yàlla duñu woo ci PM bi. kon nañ sant yàlla bi nga xamee am nañ imaam bu mat imaam. te mooy Cheikh Assane Deme radiyallaahu kooku nag mu ne kooku nag. soo gisee ñu topp ko bëgg ko. soo gisee ñu topp ko bëgg ko. dafa am lum ñu won. dafa am lum ñu won. bari na ci mbooloo mi. bari na ci mbooloo mi. ñu ngi jëflante ak moom. ñu ngi jëflante ak moom. yàqzatan laa mën a man. yàqzatan laa mën a man. loolu nag moo ko waxee. mu ne loolu su ko waxee. su yeboo nit ñi gëm su yeboo nit ñi weddi. su yeboo nit ñi gëm su yeboo nit ñi weddi. waaye ñun corno miñ top ñu ngi koy gis ñun. dëggal na itam waxi Baye Dramé. mu ne dëggal na itam waxu Baye Dramé. moom mi ñu waxoon ne. moom mi ñu waxoon ne. ki nga xam ne sëriñam bi dee na lu muy def ci këram bi. ki nga xam ne sëriñam bi dee na lu muy def ci këram bi. ki nga xam ne sëriñam bi dee na lu muy def ci këram bi. moom Baye Dramé mu ne man sama sëriñ deewut Thierno maa ngi koy gis guddeeg bëccëg. baatab guddeeg bëccëg moom dama ko jàpp ci zaahir ak baatin. baatab guddeeg bëccëg bi Baasmaan mu ne moom daf koo jàpp zaahir ak baatin. Thierno moomu nag. képp ku ànd ak moom. képp ku ànd ak moom. mbaa nga gëm ko wala nga bëgg ko na la wóor ne doo am dog sa diggante ak sa borom. na la wóor ne doo am dog sa diggante ak sa borom. da ngay branché wu direct. mu ne waxu ko ngir lim bokk ci moom. waaye yàlla dafa won ne Cheikh waaye yàlla daf ko won ne Cheikh Hassane Deme. mbiram mbiram. dafa jokk direct ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. dafa jokk direct ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. seetal. mu ne seetal. képp kuñ la wax ne taalibi cernu la. képp kuñ la wax ne taalibi cernu la. ci moom liñ la njëkk wax ci moom nga muñ koo seede ba xam ne ci taalibe cerno la nga muñ koo seede ba xam ne kii taalibe cerno la dafay leer nañ dafay rafet da ngay xool kar kanam bi dafay leer nañ te dafay rafet bëriwuñ mer mu ne bëriwuñ mer ndax ci yàlla rek la ñuy dund nit ñu bëggante la ñuy doon ñu soppante la ñuy doon ñu mën a jaamu yàlla la ñuy doon waaye itam ñu am fulla la ñuy doon man dama jàpp ne faydu moom fayda rek mu ne ndax dafa jàpp ne faydu fayda rek lay doon. fayda mënoo téye faydu. mu ne ko amul fayda mënoo téye faydu. mu ne ñun yàlla dimbale nañu. waaye yàlla nañ ko xam. ndax Thierno dafa wax ne. ndax Thierno dafa wax ne. li bàyyi indi. li bàyyi indi. ñi fi njëkk. ñi fi njëkk. ak ñi fi mujj. ak ñi fi mujj. kenn gënul ma koy xam. kenn gënul ma koy xam. loolu nag wax la joo xam ne. mu ne loolu wax la joo xam ne. képp koo xam ne taalibe Thierno képp koo xam ne taalibe Thierno nga. Cheikh Assane Dème loolu mu wax lan lan la doon. war ngaa gëstu Cheikh Assane Dème loolu mu wax lan la doon. ñàkkut am na ñu ñëw ci baay ñu ñu jiitu ci baay sax mën nañ ko jur. mu ne ñàkkut am na ñu jiitu moom moo ko waxal boppam. moom moo ko waxal boppam. dama sonn rek. dama sonn rek. soo ma gisee nii dama sonn ci daara rek moo tax ma niroog mag waaye mag waaye man nekkuma mag. jooju nag mu ne wax jooju dafa jàpp ne li Baye wax ne dafa jàpp ne li Baye wax ne fa muy nekk ay ndaw koy ñoo koy wéttali fa muy nekk ay ndaw ñoo koy wéttali mu jàpp ne Thierno dafa yóbbu boppam ci ndaw ñooñu mu jàpp ne Thierno dafa yóbbu boppam ci ndaw ñooñu rek waaye kenn magu ko de mu ngi sant ci loolu bu baax a kenn gënu ko xam li bàyyi indi bu fekkee wax na ne ñi fi njëkk ak ñi fi mujj kenn gënu koo xam li fi bàyyi indi kon su waxee ne ndaw la kon su waxee ne ndaw la mu ngi ci namm nam ndaw yi yi wettali bàyyi rek mu ngi ci namm namm ndaw ñiy wettali bàyyi waaye kenn magu ko kon nag kooku noonu mu ne kon kooku noonu su fekkee dog dafa ñëw ci fu ñu nekk mu fekk ñu fa su fekkee dog itam dafa ñëw fu ñu nekk mu fekk ñu fa lu ñu am mu fekk ñoog moom lu ñu am mu fekk ñoog moom ñu koy wax si Abdul Baqi ñu koy wax si Abdul Baqi nga xam ne nga xam ne waxuma ne mooy xalifa cerno de. waxut ne mooy xalifa cerno de. waaye mooy xalifa cerno de. waaye mooy xalifa cerno de. mu ne loolu nag waxin la. ndax mu ne ndax. taxaw na li Cheikh Assane Deme daan defee. taxaw na ni Cheikh dem doon defee. di sonn ci kër gi. di sonn ci kër gi. di ci njaboot gi. di sonn ci njaboot gi. di sonn ci taalibe yi. di sonn ci taalibe yi. di sonn ci daara ji. di sonn ci daara ji. mu ne boo demee Daaru Miraaya. da nga koy yërëm. man dem naa bu yàggul. mu ne dem na fa lu yàggul. fekk problème bu ndaw amoon fa. fekk bu ndaw amoon fa. te moom nekkut fii. moom nekkut fii. waaye keroog sama yaramam dafa daw trop. mu ne waaye keroog yaramam dafa daw trop. kër goo xam ne ay ndaw rek fa nekk. kër goo xam ne ay ndaw rek fa nekk. dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. ka leen fa dajale. ka leen fa dajale. dese doole. dese doole. ñun taalibe yi ñun ñoo baaxul. ñun taalibe yi ñun ñoo baaxul. suñ baaxoon suñ baaxoon. dana am doole. dana am doole. mu gis na kër ga tëddee. mu gis na kër ga tëddee. mu am lum sa soloon boppam. yàlla dimbale ko matalu ma nag bu baax a baax. mu ne yàlla dimbale ko matalu ko bu baax a baax. waaye defoon na ci lam man ñun nag mu ne ñun nag. ay taalibe cerno lañ. ay taalibe cerno lañ. suñ baaxee suñ bone. suñ baaxee suñ bone. suñ amee suñ ñàkkee. suñ amee suñ ñàkkee. suñ rafetee suñ suñ ñaawee. suñ rafetee suñu ñaawee. suñ ñu bëggee ak suñ ñu bañee. suñ ñu bëggee ak suñ ñu Cerno moom. mu am chance danañu yóbbaale. ku am mu am chance dinañu yóbbaale. mu ñàkk chance itam dinañu yóbbaale. ndax bi mu wootee ci buntam lañ ko fekki. ñun xooluñ kenn. dégluwuñ kenn. yootuwuñ kenn. yërluwuñ ndabal kenn. yërnduwuñ itam ndabal kenn. ndax ñun batt biñ nampee. ndax ñun batt biñ nampee. dafay mandal dafay reggal. dafay mandal dafay reggal. mboolem al usmaani yu mboolem al usmaani yu ñu tuddee miftaaxul wusuul ñu tuddee leen miftaaxul wusuul koo ci gis koo ci gis Cheikh Assane Dème moo nekk ci dënnam bi. foo tuddee Thierno Tukulóoru Baye. foo tuddee Thierno Tukulóoru Baye. da ngay xam ne. da ngay xam ne. faydu bii. faydu bii. kenn ko ci waar. ëpp ko ci waar. ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax. keroog bi ñu demee Koosi. keroog bi ñu demee Koosi. fekk Baye Mamoun. fekk daf wax ne. daf ko wax ne. bi ngeen dugg see Ceerno Tukulóoru Baay. bi ngeen dugg see Ceerno Tukulóoru Baay. da ngeen maa taxalaatal sama sama xaal bi. da ngeen maa taxalaatal sama xaal bi. mu sant ci yàlla bu baax a baax. mu sant ci yàlla bu baax a baax. ndeke man sama maam. mu ne ndeke moom maamam. kenn mënu ko ci faydu bi. kenn mënu ko ci faydu bi. mu ne loolu Baye Mamoun moo ko wax. mu ne kon nañ sant yàlla bu baax a baax. su fekkee ñun ñu bon ñi su fekkee ñun ñu bon ñii. ñooy dimbale nit ñu baax ñi ba di leen taalal seeni xaal. ñooy dimbale nit ñu baax ñi ba di leen taalal seeni xaal. taaluñ ko dara lu dul seen maam rek lañ leen fàttali. te taaluñ ko ci dara lu dul seen maam rek lañ leen fàttalil. mu ne loolu sant yàlla la. Cheikh Abdoul Baqi nag man maa ko boole woon Cheikh Aliou Ndiaye mii. Cheikh Abdoul Baqi Baye nee moo ko boole woon Seydi Aliou Ndiaye. mu jàpp ci loxo Seydi Aliou Ndiaye yóbbu ko ci Cheikh Abdoul Baqi. kii ne ko kii mooy suñu sëriñ na nga ànd ak moom mu ne xam naa ne yaa ma ëpp jot waaye bul dugg Medina mukk génn ko lu dul ne da ngaa dem ci barabam nga gis ko mbaa nga ñàkk koo gis na nga dem ba fi nga ko gisee woon. Baye Ndiaye mu ne Baye Ndiaye. moo ma gën a a jaamu moo ko gën a mën a jaamu yàlla. ndax man jaar naa ci ndaw. ndax moom jaar na ci ndaw. waaye moom bi muy lu tuuti laa ko jël ba fi ma toog waaye moom bi muy lu tuuti la ko jël ba mu toll nii. moo Khalifa Diagne mii. moo Khalifa Diagne mii. ak ku ñuy wax Omar Ly. mun naa wax ne jaaruñ ci ndaw. mun nañu wax ne jaaruñ ci ndaw. lu doy waar la. mu ne loolu lu doy waar la. Aliou Ndiaye. mu ne Seydou Aliou Ndiaye. ak Moussa Diagne. ak Baye Moussa Diagne. xamuñ àdduna. xamuñ àddina. dara lañ dara lañ ci xamul. loo leen waxut ba léegi xamuñ ko. loo leen waxut ba léegi xamuñ ko. ñoom yaakaar nañ salaatul faatih tur yàlla rek la nit war a dundee. ñoom yaakaar nañ salaatul faatih tur yàlla a dundee. Baye Ndiaye bu xëyee am ñaar téeméer. Baye Ndiaye bu xëyee am ñaar téeméer. pour moom mu ngeeg million. pour moom mu ngeeg million. a euh, euh, rattu gi. waaye gën naa mën a rattu kurus gi. wéeru wéeru. fas yéene tudd yàlla mbaa mu jàng alxuraan. fas yéene tudd yàlla mbaa mu jàng alxuraan. léeg-léeg ma léeg mu ne ko. yow dafa mel ni bugguloo ci bi dara. yow dafa mel ni bugguloo ci àdduna bi dara. mu ne bëgg naa dara di. <laughs> mu ne naa dara di. waaye nag ah, yi moo ma moo ma kii itte yi ma sonal rek. waaye itte yi ko sonal rek. ma ne yow si itte lu dul la wala wala wala salaatul faatiha. mu ne ko man gisuma si itte lu dul alquran ak salaatul faatiha. mu ne itte mënul paase loolu. mu ne itte mënul paase loolu. Baye Ndiaye ku ko xam. mu ne Baye Ndiaye ku ko xam. bëgg yàlla bëgg yonantu. bëgg yàlla bëgg yonantu. bëgg Medina Baye. bëgg Medina Baye. bëgg wasifa ak julli. bëgg wazifa julli. bëgg jàng alquran. bëgg jàng alquran. bëgg salaatul faati. bëgg salaatul faati. lii lañ xam ci moom. lañ xam ci moom. ba muy ndaw ba léegi tànkam fi mu ko tegoon ba léegi teggiwut ko. ba muy ndaw ba léegi fi mu tegoon tànkam teggiwut ko. nit ku am kóllëre la. li ma gën a neex ci moom. li ko gën a neex ci bànjaay. yàlla daf koo boole ci muñkat yi. yàlla daf koo boole ci muñkat yi. dafa mën a muñ. dafa mën a muñ. loolu mu ne loolu moom. jàmbaar la ci joo xam ne amul kum ci yemat. jàmbaar la ci boo xam ne amul kum ci yemat. bànjaay bu xamee bu amee. bànjaay su amee. kenn xamut su ñàkkee su ñàkkee kenn xamut kenn su amee lu ko naqari su amee lu ko naqari kenn xamut kenn xamut su amee bànneex su amee bànneex du weesu muñ du weesu muuñ alhamdulilahi rabbil alamin nit a ngi nii koo xam ne mu ne nit a ngi nii koo xam ne ñun ñu nekk moom ñun ñu nekk ak moom ñuy jàngal ndax ni muy ni daf ñuy jàngal ndax ni muy jëfee amul dara amul dara ku xewle waaye ku xewle teewu fa teewu fa xanaa daf koo yëgut xanaa ko gis li ma gën a neex ci seen ànd bi rafet bii. mu ne li ko gën a neex ci ànd bu rafet bii. fan yi ngeen dem boobu ngeen defoon. fan yi ñu dem ci lël bi ñu defoon. dafa toog ba dimanche ci ngoon. dafa toog ba dimanche ci ngoon. ñu ne yow doo dem ci seen séminaire ñu ne ko xanaa yow doo dem ci seen séminaire bi. mu ne yàlla tere. mu ne yàlla tere. yàlla bu ma yàlla bu ma fa dem. ñu ne lu tax. ñu ne lu tax. mu ne barab boo xam ne Aliou Ndiaye nga fa. mu ne boo xam ne Aliou Ndiaye nga fa. lu mu fay wuti. lu mu fay wuti. ndax lu a war ko faa def moom dana ko wax dana def. ndax xam naa lu ma fa war wax wala ma war ko faa def moom dina ko fa wax wala mu def ko fa. ndax mooy seen mag. ndax mooy seen mag. donte ëpp leen ay at. donte ëpp leen ay at. mat na leen mat la leen kalifa la wax ñi wax ñëpp li ma wax ñëpp loolu la leen wax mu ne ñi mu wax yëpp loolu la leen wax man wax dëgg yàlla doy na mu ne moom wax dëgg yàlla doy na ko alhamdulilah li yonent bi waxoon ne Seydina Ali mii day bokk na ci ñi ko doy li yonent waxoon ne Seydina Ali mii bokk na ci ko doy jaarul ci ndaw ndax jaarul ci ndaw gis naa ko ci Aliou Ndiaye mii mu ne gis na ko Seydi Ali Ndiaye mii wallaay bu xeesoon wallaay bu xeesoon mbaa mu jàng njàng mu bari mbaa mu jàng njàng mu bari dinaa ko tuddee Seydina Ali mooma dinaa ko tuddee Seydina Ali mooma baax nit ku baax nga ni ku am kóllëre ku am kóllëre. ku mën a dox mbokk. ku mën a dox mbokk. ragal ku ko mere. ku ragal ku ko mere. dafay dem dem ba mu jógee nga yaakaar Aliou Ndiaye dafa ragal. dafay dem dem ba mu jógee nga yaakaar ne Seydou Aliou Ndiaye dafa ragal. te wallaahi ragalut. te wallaahi ragalut. dafa dafa baax rek. dafa baax rek. moom. moom. dafay topp sax ñi ko war a topp. dafay topp sax ñi ko war a topp. di neexal ñi ñi ko war a neexal. di neexal ñi ko war a neexal. di dimbale ñi ko war di dimbale ñi ko war a dimbale. te loolu yëpp day jàngewu ko ci man de xaj na jàngewu ko ci moom de ndax man am naa fët-fët man moom man séeréer la ndax moom séeréer la man moom moom defante rek la man defante rek la man waaye Seydi Aliou Ndiaye moom du toppante kenn wax dëgg yàlla ku baax la mu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm tey ak ëllëg te lii Alsaan wax ni te lii Thierno Alsaan wax nii yaa ngi soo commencé gàmm yaa ngi soog a commencé gàmmu. maa jàpp ne ren nga soog a tàmbali gàmmu. mu ne moom itam mu ngi jàpp ne ren nga door a commencé gàmmu. mu ngi sant yàlla bu baax a baax. ci ànd bu rafet bi yal na ko yàlla saxal. mu ne lii rek la bëgg. ngeen nekk benn. ñu nekk benn. bëggante te yàlla tax. bëggante te yàlla tax. di dimbalante te yàlla tax. di dimbalante te yàlla tax. def Cheikh dem mu nekk suñu xibla. def Cheikh Assane dem mu nekk suñu xibla. bu leen kenn yóbbu fenn. bu leen kenn yóbbu fenn. am ngeen añ. am ngeen añ am ngeen reer am ngeen reer am ngeen ndékki am ngeen ndékki am ngeen boisson am ngeen boisson am ngeen koppar am ngeen koppar am ngeen ay ay waruwaay am ngeen waruwaay am ngeen soxna yu rafet am ngeen soxna yu rafet yàlla may na leen ay doom te dina barke yàlla may na leen ay doom te dina barke yem leen ci keppaaru Cheikh Assane Deme yem leen ci keppaaru Cheikh Assane Deme foofu ngeen ko jële mu ne foofu ngeen ko jëlee lii lii mu leen jox lii mu leen jox teeñ bi la teeñ bi la yéen bi ñëwagul yéen bi ñëwagul te moom xam na ne dinañu jox eh, yan bi. li tax lu tax. wax leen ko mu wax ñu ko. Baye Dramé ngi nii. moom mu ne moom. Seybatul Hamdi la ko tuddee. màggat na te nekk ndaw. màggat na te nekk ndaw. biñ ko toppee ba léegi. biñ ko toppee ba léegi. musut ñoo woon boppam. musut ñoo woon boppam. soxlawu dara ci bi. soxlawu dara ci àdduna bi. Dramé soo bëggee mu kontaan rek. Baye Dramé soo bëggee mu kontaan. bëggal Cerno. bëggal Cerno. mbaa nga tudd Cerno. mbaa nga tudd Cerno. moom pare na ci yow. moom pare na ci yow. gisatul sa sikk gisatul sa sikk loo def baax na loo wax baax na loo def baax na loo wax baax na dina xam ne ceerno nga bëgg mu ne comme xam na ne ceerno nga bëgg loo wax baax na loo def baax na loo wax baax na loo def baax na man sama baax gi taxu koo bari mu ne moom mbaaxam gi taxu koo bari waaye Baye Dramé nangut ma nangut ma nangut ma sikk waaye Baye Dramé nangut mu sikk ndax xam na ne dama bëgg ceerno ndax xam na ne dafa bëgg ceerno man su ma su ma ko bëggee su ma ko bëggee yeew rek mu ne moom su ko bëggee yeew rek ceerno Assane Dem laa laa koy tegal ceerno Assane Dem la koy tegal lu ma def mu ree lu ko lu mu def rek mu ree même bu ma tooñee mu ne même bu tooñee su ma ñëwee rek su ma ñëwee rek lay lafu rek ci Thierno lay lafu rek mu ree ma mu ne mu ree ma ne ko mbaa kontaan nga ne mbaa kontaan nga mu ne kontaan naa mu ne kontaan naa mu ne alhamdulilah rabbil alamin kon Thierno mbala ci ñun mu ne cer no mbala ci ñun ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax Cheikh Abdoul Baqi nag ñu lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm joxuñ la garab joxuñ la alal joxuñ la alal nga euh, ñu koy waxeeti yóbbuwuñ la fenn. yóbbuwuñ la fenn. solo luñ la ay mbubbu solo luñ la ay mbubb. yàqal la sa temps. yàqal la sa temps. dégg nga euh, te ñun jëriñuñ la dara. te ñun jëriñuñ la dara. te fépp fuñ teew. te fépp fuñ teew. bu fekkee yaa ngi ci réew mi. bu fekkee yaa ngi ci réew mi. yàlla may la wér. yàlla may la wér. fuñ la woo nga fekk ñu fa. la woo nga fekk ñu fa. loolu nag yombul. mu ne loolu yombul. am kilifa ak ndaw. am kilifa ndaw. yombul yombut. jàngeen ko jàppate yàlla tax. nañ ko jàppate yàlla tax. ndax kilifaak mag. ndax kilifaak mag. boo ko amee it mënuloo foo ko soxla am ko fa. boo ko amee itam mënuloo foo ko soxla nga am ko fa. waaye kilifaak ndaw. waaye kilifaak ndaw. boo ko amee jàpp boo ko amee jàpp ko. sëriñ nag loolu lay jëriñ. mu ne sëriñ nag loolu lay jëriñ. boo jaaxlee gis ko. boo jaaxlee gis ko. boo sonnee gis ko. boo sonnee gis ko. boo tiitee gis ko. boo tiitee gis ko. boo mu jàpp mu jullee boo faatoo mu jullee la. dégg nga boo boo ko ña boo ko ñaanloo mu ñaanal la. boo ko ñaanloo itam mu ñaanal la. mu ne lii la ñuy doyee sëriñ. te wax dëgg yàlla féete nañu foofu. te wax dëgg yàlla. Cheikh Abdou Baqi yi féete nañu foofu. mu ne moo tax mu wax ne. xalifa la ci Cheikh Assane Deme. ndax man Thierno. ndax moom Thierno. gis naa mu ñëw saara gis na mu ñëw ca saara ay yooni yoon ay yooni yoon booba naanaguma wax dëgg yàlla mu ne booba naanagul wax dëgg yàlla gis na ceerno mooy ngénte doom yi gis na ceerno mooy ngénte doom yi mooy tudd doom yi nga mooy waxtaanal nit ñi. mooy waxtaanal nit ñi. suñuy dem mooy yëkkati xaalis jox leen ñu ñu dem. suñuy dem mooy yëkkati xaalis jox leen ñu dem. tukulóor yi loolu lañ toppee woon Thierno. mu ne tukulóor yi loolu lañ toppee woon Thierno. mu ne day wax ne tukulóor. mu ne day wax ne tukulóor. yombut mu topp nit. yombut mu topp nit. te Cheikh Assane dem gis na tukulóor yëpp moom lañ toppoon. te Cheikh Assane dem gis na tukulóor yëpp moom lañ toppoon. topp euh, Pa Demba Dieng da doon wax ne. mu ne Pa Demba Dieng da doon wax ne. kaay ma may la xaalis. kaay ma may la xaalis kaay lekk ba suur. kaay lekk ba suur. kaay naan ba màndi. kaay naan ba màndi. mu ne siyaasa dem loolu la dem loolu la doon wax nit ñi. bu la ooyee daal. bu la ooyee daal. julli la lay doyee. julli la lay doyee. wala kaay lekk. wala kaay lekk. wala kaay nga naan. wala kaay naan. wala kaay ma may la xaalis. wala kaay ma may la xaalis. mu ne noonu ku mu woo nga wuyu ko. mu ne ko ku mel noonu ku mu woo nga wuyu ko. dëgg yàlla na wax dëgg Paa Demba Dieng yàlla na ko yàlla yërëm amiin. ku bëggoon cerno la. mu ne bu ko buñ ko waxee ne kaay jàng kaay jàng Fatiha. mu ne buñ ko waxee kaay jàng Fatiha. mu ne loolu indiwoon ma fii de. lu la indi fii. lu la indi fii. mu ne boo laajee Cerno moom dina la wax li ma fi indi. mu ne man kaay lekk kaay naan kaay jël xaalis moo ma fi indi. macha allah alhamdulilah. kon si Abdul Baaxi mu ne kon si Abdul Baaxi ñu ngi lay faslante ak yow suñu kóllëre ñu ngi faslante ak yow suñu kóllëre wala ñu ngi koy beesalaat kay wala ñu ngi koy beesalaat bu fekkoon dafa màggate màggatut de bu fekkoon ne dafa màggate màggatut de ñun ceerno lañ bëgg moom lañ am ñun ceerno lañ bëgg te moom lañ am ah yàlla def na nag am chance mu ne yàlla def na nag nga am chance gannaaw sa njaboot gi ñu ngi jéem a baax baaxlu gannaaw sa njaboot gi ñu ngi jéem baax baaxlu am nga chance kon am nga chance ndax ñun buñ baaxutoon tamit ndax ñun buñ baaxutoon tamit sa lëjël la ñuy nekk de sa lëjël la ñuy nekk de ndax Thierno du dem mukk te yóbbaale wut ñu ndax Thierno du dem mukk te yóbbaale wut ñu ku ko tudd itam ñu tudd te ku ko tudd itam dang ñu tudd li lay wax loolu li lay wax loolu ashaabul kahfi ashaabul kahfi ba léegi seen tur yi ñu ngi tegat ñu ngi ci teg xitmiir ba léegi seen tur yi ñu ngi ci teg xitmiir kon Cheikh Assane dem itam kon Cheikh Assane dem itam ba bufta wol ba bufta wol miftaaxul usul di ko bàyyi miftaaxul usul di ko bàyyi moo ko moom de moo ko moom de alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañu yàlla tas ci barkeem yàlla nañu yàlla tas ci barkeem barkeem amiin te dimbale ñu ci njubam gi mu jubal ñu ci ñaan gim ñu ñaanaloon ne gis na ci ñun xiin woo bu dottee ko ñun ñëpp danañ doyal ñaan gim ñu ñaanaloon ne gis na ci ñun Euh, xiin goo xam ne bu dotteekoo ñun ñëpp dinañ doyal. mu ne moom nag xiin boobu. ñaanu mu nekk xam-xam. mu nekk xam-xam mu ne alal rek la bëgg ak wér amiin. moom rek soxla. moom la soxla. te bu dee yàlla am nañ ko. bu dee yàlla am ko. bu dee eh, ay tijaan lañ. mu ne bu dee mucc ay tijaan lañ. bu dee aljana ñun ay tijaan lañ. bu mu ñun dara lu ñu dee mu yóbbu ñu aljana. te yàlla mu ci ñun dara lu dul ñu dee mu yóbbu ñu aljana. parce que tijaan moom aljana la jëm. parce la xam-xam ndax xam nañ yàlla xëccootuñ xam-xam ndax xam nañ yàlla xaalis lañ bëgg xaalis lañ bëgg xiin woowu xiin woowu yow mii doomam yow mii doomam yow mii deretam yow mii deretam yow mii moom yow mii moom ñu ngi lay ñaan nga defal ñu ko xaalis na nga taw xaalis bu bëri suñu kow ñuy mën faj suñ soxla yi ñuy mën a faj suñ soxla yi dégg nga dootuñ abbi dara dootuñ ñaani dara dootuñ abbi dara dootuñ ñaani dara soxla bu ñu fek ñu faj ñu ñu ñu ko. ñu faj ko. oto yu rafet yii. oto yu rafet yii. pour ñun la. pour ñun la. kër yu rafet yi kër yu rafet yii. ñun la. pour ñun la. ndax yàlla kat. ndax yàlla kat. am naa yaakaar ne. am na yaakaar ne. yaakaar ju tasut. te yaakaar ju tasut. ñun la am ci kow suuf. ñun la am ci kaw suuf. ñu ko kennal te duñ ko bokkaale. ñu ko kennal te duñ ko bokkaale. naka lay mën a joxe ay noonam. waa naka la mën a joxe ay noonam. bàyyi ay xaritam. bàyyi ay xaritam. ñun ay xaritam lañ. te ñun ay xaritam lañ. te xaritam yeeg noonam yëpp da leen di te xaritam yeeg noonam yëpp da leen di rey. ko xaritam jox na ko noonam kon war na ko mën a jox xaritam waaye wërsëgam bi jox na ko ay noonam waaw war na koo jox ay xaritam mu ne loolu lañ ci yaakaar sëriñ bi daal sëriñ bi daal ñun xaalis lañ soxla. li nit di war a soxla yëpp ci ëllëgam. li nit di war a soxla yëpp ci ëllëgam. loolu bàyyi fàggul nañu ko ba pare. loolu bàyyi fàggul nañu ko ba pare. ñun xaalis lañ bëgg. moom lañ lay ñaan moom lañ ñaan moom lañ lay ñaanloo ci gàmmu gii. moom lañ lay ñaanloo ci gàmmu gii. bëgg ci milliardaire yooyu. te bëgg nañ Seydou Aliou Ndiaye mu bokk ci milliardaire bi. bu ko soxlawul man mu ne bu ko soxlawul itam moom moo koy ñaanloo. ginnaaw loolu nag. ginnaaw loolu. maa wax ne yéen ñëpp yéen itam yéen mbokki taalibe yi. mu ngi wax ñun ñëpp ñun mbokki taalibe yi. yàlla dafa wax ne. nit ki du am lim bëgg lu dul dafa joxe lim gën a bëgg ginnaaw ñu ngi ñaan xaalis nag ginnaaw ñu ngi ñaan xaalis nag kon indi leen fii xaalis ñu jox sëriñ bi loolu bu buñ ko defee mu xam ne liñ bëgg moom lañ ko jox mu xam ne liñ bëgg moom lañ ko jox kon làmb leen seen mu ne kon nañ làmb poos yi te ñu génnee hadiye yi mu ne këyit bu mag a mag bi nag la soxla mu ne temps yi moom dafa sant Fall ku ma gën a liggéey ma gërëm la ku ko gën a liggéey mu gërëm la. mu ne junni la am. waaye ñaari junni la bëgg ku ko commencé la. mu ne ku man na ñëw. xaalis bu bari la bëgg de. mu ne junni la am. mu ne way mbokki taalibe sëriñ bi laaj na leen ñaari junne. mbaa ñaar fukki junne. wala million. lu waay mën na ko indi. barke Cheikh Tidiane. ñëw leen ñëw leen ci ñaari junne yi. soxna yi gisaguñ leen de sañse gi rafet na lool macha allah waaye waaye jigéen ñi xanaa yéen bokk leen ci ah xanaa bëgg leen jëkkër yu baax ak ñëw leen ñëw leen ci ñaari junne yi waaw kay ah, ñëw leen ci ñaari junne yi ñaari junne yi ñëw leen imam malik ñëw leen ñëw leen ci ñaari junne yi ñëw leen. lu muy jox da koy jaay. yow mu ne Baye Alpha loo joxe da koy jaay. waaye Thierno mën na ko. waaye Thierno mën na ko. jërëjëf Binta. ñëw leen. ñëw leen ñëw leen jigéen ñi ñëw leen. ñëw leen waay. ah kii la yemal. doomu bàcc saako la yamar yamar la ko tuddee ñëw leen ñëw leen ñëw leen balaa ñu jox sëriñ bi ñëw leen leen ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare eh, di bees luwaat rek di la wax ne fan yi dafa bari lu maa gis Cerno waxtu wu ma ko gisee na gis naa kër gi yokk maa ngi ko doon gis muy yokkoo ci penk bi ay fan yu tegaloo barki démb ma gis ko mu ngi yokkoo ci côté xarf bi gis naa ko ñu ngi dugal ay bagaas ci néegam kenn ci bëkk néeg yi lu mel ni ñaari saako mu yëkkati ko jël beneen bàyyi fa ñaari saako yi ma ñëw jël ñaari saako yi maa ngi romb carno mu téye sama loxo ñoddi ma maa ngi ko fekk mu ngi tëdd jublu penku téye kurus gi ak loxo càmmoñam ma ne Thierno dafa bëgg ko bësal ma ñëw di ko bësal eh, sëñ Ousmane léegi wax nga ci Thierno danaa la ci jox ñaari seede sëriñ Mahi Aydara mi nga xam ne daraan dugg xalwa at bu génnee dem siyaare ji yonent bi ñëw siyaare Seexu Tijaan ñëw siyaare Baay bu demee bu génnati déwén la dafa ñëw neyu carno jox ko àddiyaam ñuy waxtaan ba mu yàgg mu ne carno yow sa tutaale bi ban tur nga leen jox damaa gis seen kanam yi leer carno mu ne joxuma joxuma leen benn tur salaatu fatihi rek laa leen jox waaye sama taale bi ay macc suuf lañ lii carno wax làmmiñam sama nopp Mouhamadou Nasir Cheikh Abdou Bakhi xam na ko kooku moo dajeeg bàyyi ci fàddu nam dajee woon moom ci fàddu saxaada ñëw mu bàyyi feeñal dajee ba mu xam lum def ci bàyyi mu xam lu bàyyi def ci moom mu Mouhamadou Nasir mu xam ay xat yu bari waxtu mu bëggee ñëw siyaare si bàyyi rek bàyyi ne ko déere jotagut yow doomu siyaare si la mooy waxaabu waxaabu at ba jot mu ñëw jaaree ci loxol sëriñ Maamun yàlla baaxee ma ma dem siyaare ji ko ci kët Papa As waxtaan ak moom ba timis jot ñu ànd ñëw julli timis biñ julee timis wasifa digganteeri wasifa wi ak gexe gi ñu ànd dem siyaare ji rawdu bi booba rawdu bi bàyyi sëriñ Aliou rek moo fa nekk bàyyi ak sëriñ Aliou rek maa sës mu ñëw siyaare bàyyi bi muy ñaan maa ngi dégg mu ngi jottale ko ci turu Cheikh mu ñëw ci Serigne Aliou dellu ñaanati ma dégg mu jottale ko ci turu seexasandem ñu ñëw ju liggéeyee ma ànd ak moom ñu dem ba ca étage ba ma laaj ku ma ne ko waaw Seydi man dama laa gis bi ngay ñaan yaa ngi jottale ko ci Cheikh Assane yow fan nga mos a dajeeg Cheikh Assane mu ne ma Cheikh Hassan Deme dafa yegg ci yonantu foo xam ne képp koo xam ne xam nga jokkoo yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foog nga xam moom rapport lii la ma wax kon e, boo waxee ne taalibe Cheikh Hassan Deme yi dañoo leer loolu lu wér carnu moo leen ko séedeel boppam kon si Abdou Baax liñ lay wax mooy dañ lay seedeel li nga xam kër Thierno gii ma gis muy yokk kër gële ñu tabax la de waaye man xam naa ne dóor koogu googu rek hmm, te itamit wax dëgg yàlla fa ama bi nimat rabbika fa hadis am na kàddu boo xam ne Thierno Alassane Gassama wax na ko te man bi ngeen di wax rek di wax pare ni li ma doon xalaat mooy su ngeen xegsee ci man man dinaa leen wax ne dee takkante dee leen teralante lépp xaj na ci seen biir te ku ngeen mën a tuddee teraanga gu mën a doon boole ko ci guddi gu màgg gi boole ko sa mbokk moo ko gën am solo man xam naa ne kenn ku nekk la ne ci xolam morom ka mooy nekk ci xolam waaye lii daf koy firndeel waaw kii di xalifa fii mas nañ fee tànt benn tànt mu takk photo Baay Ousmane ma tekki ko mu dellu ko takkaat mane ko tekki ko te xam naa ne booba maa ngi yurlu ci xolam loo xam ne xóor na ma ne dugguma ak naan ci ndox mi la xemale <laughs> waaye booba li ma bëggoon xaaj ko ci tànt bi dugal ko ci xol yi loolu laa soxla woon yéen fu ne xam ngeen buñ ko bëggee xam ngeen buñ ko bëggut xam ngeen kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm bu baax di leen wax ne man xam naa ne ay carno yu baree ngi ci mbooloo mi ndax su fekkee ne carno yërmande la woon carno xéewal la woon carno barke la woon carno jàmbaar la woon lépp lu ci nekk rek ñu ngi gis ne mu ngi koy nàmpale waaye ñu ngi koy wane si Abdul sa yoon wii doo ci wéet yoon wii doo ci wéet tànki carno rek nga topp na la wóor ne foo xootee dañ la xuy si ndax xam nañ fi nga jëm dara ñorul la la mooy carno man xam naa ne sëñ Ousmane su ma bëggee nax rek Thierno ci la ci la may <laughs> ci la may jaare waaye moom itamit ku ko bëgg a nax rek ba ba jaaree ko ci Thierno te it ma xamal leen ne nit manta bëgg Thierno ba pare jàllar ba ko di mbon mbon gu yàlla di xool manta am ba ilaa yow mi diin du am su fekkee rek manqué te rek la nit di gis ci boppam amu doon kenn ku ma gën a manqué waaye li ma xam samay manqué tegi li may manqué manqué manqué xamut ku ma gën a dal xel amut ku ma gën a sedd xol te loolu nag ni ma xamee tey noonu laa xamee noonu laa amee ëllëg wér na ma ndax ku wecceewut doo ñàkk dox ba ba ko bàyyi mayee mbubam waaji bëgg koo nax ne ko am ma jox la mbu mi nga joxam mbu moomu mu ne ko ah, man ma man ma am ban su ma la joxee bii ma am mu ne ko nga am sama mbubb mu ne ko yow nga amban ban <laughs> mu ne ko ma am sa mbubb mi mu ne man ma am <laughs> xam nga ne moom mbubb du ko du ko joxe ba ilaa yow mi diini <laughs> waaye ñu ni tamit duñ weccee carno ba ilaa yow mi